coow li dox si diggante Ousmane Sonko ak aji saar saa suñu xëyee ay mbir di si gën di yees ginnaaw boo xam ni nag nee nañu génn kilifa mu daal di génne si kopparu CFA lu toll si fukki million daal di koy fay ngir nag ñu jox ko benn vidéo boo xam ne nii kii di Sonko ak Adji Sarr ñoo si nekk ki nga xam ne nag moo joxe koppar gi moom wuyees turu Abdou Nguer moom mi lekkoon nag moo jox Sidi Ahmed mbay ngir mu jox ko kële bu nu mel nga xam ne vidéo bi si la nekk bu ñu sukkandikoo si Abdou Nguer mi jël boobu lépp kële nee na mu àggee am ba dugal ko si ordinateur am gis na nag clé bi dafa vide amul dara loo xam ne nii moo ngi si boor boobu lépp clé Abdou Nguer di wéyal ne nag jamono ji def na ab diir boo xam ne ni nag mënul fexe ba jot clé di sii di Ahmed Mbaye bu ñu sukkandikoo si libération mu joxe xibaar bi nu mel nag jàpp nañ ne mbir mi am na les waxul ndax kilifa gi nga xam ne nii moom lañ ciy tudd di autorité nekk si ginnaaw du nak responsable politique bu APR wala ministre waaye du kenn ku dul nag homme d'affaires bi la di Dora Gaye nga xam ne nii jamono ji waykat yu bëri moom moom lañ jël di ko woy si seen i son wala vidéo yi ñuy génnee mbir mi nag jamono ji section recherche bu gendarmerie bu Dakar tëj na cible ngir xam fu wànnent di mujjee ci gëtëm